di ko ne allahumma anta salaamun wa minka salaam ilayka yaudu salaam fa xayina bisalaam wadxilna aljannata daarak daar salaam bur yàlla yow mi am jàmm ñu ngi lay ñaan yàlla nga ñu dottil jàmm yàlla nga ñu may jàmm yàlla nga ñu dundal ci jàmm bu ñu noppee ci dund bi tamit yàlla nga ñu may ñu dajeek yow ci jàmm këru jàmm ba nekk fa yow di arjann yàlla nga ñu ko may sañ nga ko mën nga ko yal nañu ko buur yàlla defal amin ya rabbal alamin mbokk yi Rewmi FM 97.5 ci waxtaanu fajar ba ñuy ànd ak di wéttalante ki yéen ñoo ngi nuyu ligne 77 ba nga xamante ne mooy daw Dakar Tëngéej mbokk auditeurs yeeg mbokk chauffeur seeg client yeeg réservoir bi ak personnel bi ñëpp ñu ngi leen di wax assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu yàlla ñu yàlla may kendaloog jàmm yal nañu yàlla jàmmal ci suñu liggéey bañuy ñuy kër-këri di si fàggoo la daggan ngir ñu di ko fàggoo ndax waxtu wi de mooy waxtu wi nga xamante ne buur yàlla daf ñu ko joxoñal ci alquran mu ñu wa jacalna nawmakum subaatan wa jacalna leyla libaasan wa jacalna nahaara maasan ni nañu bi maanaa aaya bi man yàlla maa leen defal nelaw mu doon dallukaay ba ngeen di dalloo nelaw maa leen ko jagleel mu doon fa ngeen di fàggoo dallukaay boo xamante ne du ngeen ko amee feneen te mënu leen koo fàggoo ci feneen wala ci neneen du ci nelaw waaye ma defal leen guddi mu doon mbàjj boo xamante ne moo leen di muur di leen suturaal kilima guddi mu ngi waaj a tàggatoo ñu ngi waaj a dugg ci kilima bëccëg waaj dugg kilima bëccëg boobu noonu gannaaw ci waxtu su néew gannaaw bu ñu joxe faratay suba joxe nañu julli farata ci njëlbeenu bés bi muy julli fajar léegi ñu ngi waaj a suubu ci beneen climat bi nga xamante ne muy bëccëg buur yàlla ni ñu wa ja'alna nahaara ma'ashan man yàlla may ki leen tàggatal bëccëg mu doon waxtu fagguteefu wërsëg bi nga xamante ni kenn ku nekk na xëy dem sàkku na xëy mu dem fàggu na xëy dem kër këri la muy dundee ak la muy dundal njabootam kon képp ku ñuy bàyyi xel jamono ji foo munti nekk ñu ngi lay ñaanal yàlla yan na la ci loolu ngay yëngatu amin ya rabbal alamin lépp link lépp ci fàggu tamit yan na la ko yàlla defal mu doon barke ñeel la ak say njaboot mbokk yi Rewmi FM 97.5 ci waxtaanu fajar bi ba léegi yéen a ngi fàttaliku démb bañ doon taxaw ci suñu alwa ba yàlla buur bi tabaraka wa taala jox yonent bi comme message mu doon alquranul karim comportement ba doom bi war a comporté woo ak yaayam wala ak pàppam te mu doon thème bi nga xamante ne ren suñu kilifa yi ñoom lañu ñu yëkkati ñu ne nañ leen ko waxtaane mu doon makaarimal axlaaq mu doon jikko yu tedd yi mu doon jikko yu noobul yi te alquran jàngale ko yonent bi andil ñu ko su ko defee dimb lenn ci lañu alquran jàngal moom lañ leen doon jukkil ci suñu kémtalay kàttan ak waxtu bu néew bu ñu cërale su ko defee lépp luñ ci dégg mu bëri ka néew yal nañu ko yàlla wërsëgal ñu mën kaa jëfee amin ya rabbal alamin yonent boobu yàlla jox alquran ba yàlla ne doomu aadama nii laa bëgg mu dundee ko ak wuy juróom na ko comporté woo ak wuy juróom yonent boobu ba léegi moo ñu bëgg a jox tegtal wi nga xamante ne nee nañu ci maana xadis képp ku ma képp ku ma wottul képp ku ma tiil juróom benn mbir ya nekk fa moom dinaa ko garantil arjanna dinaa ko wattu sàmmal ko ne kooku de médité naa dugg ba nekk fa yàlla ñu di ko duppee arjanna juróom benn cër yooyu noonu yonent bi ne képp ku ma garantil dinaa la garantil arjanna médité nga dugg këru xéewal ba nekk fa yàlla di arjanna te juróom benn kër yooyu yonent bi nee na képp ku ko garanti di nga am méditation pour tàbbi arjanna juróom benn kër yooyu noonu nag képp ku ko bëgg a xam nangu ñu may nopp fii ci Rewmi FM 97 point 5 ci waxtaanu fajar bay jaar fii ci daara ji ñu bokk déglu lañu suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxoñal ne loolu mooy juróom benn cër yooyu kon nañ leen bokk xuusandi ñu bokk dugg sóobu ci xadiisu yonent bi sallallahu alayhi wa ci ndénkaane ba mu dénkaane xeetam ne leen juróom benn cër a ngi nii ci seen jëmm yi képp ku ko wottul képp ku ko garantil képp ku ma ko sàmmal dinaa la garantil ne médité nga ngir nga tàbbi kër xéwal ba ñu naan arjanna ba nekk fa yàlla moo tax mu ne qaala sallallahu alayhi wa wasiyatu nabawiya yenentu bi nee na sallallahu alayhi wa sallam bi de moom moo ko dénk mu ne ñu idmanuli sittan min anfusikum admana lakumul janna asduqu ida hadastum wa awfu ida wa'adtum wa adu ida utmintum waxfaduu furujakum wa gadduu absaarakum wa kaffuu aydiyakum rawaahu ahmad wa ibnu xibbaan walxaakim wa saxahahu fi xadiise mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu ne juróom benni mbir ngi nii képp ku ma ko wattul sàmmal ma ko gardel ma ko dinaa la garanti ni dinga nga dugg arjan moo ne yonent bi ne maa ngi leen di dénk yéen mi di sama xeet juróom benni mbir a ngi nii képp ku ma ko garanti wattul ma ko dinaa la garantil ne di dugg arjan keroog bis mu ne ndenkaane bi nag yonent bi moo ko dénkaane xeet wi sallallahu alayhi wa sallam mu tax mu ne wasiyatun nabawiya ndénkaane bi de mu ngi tukkee ko ci sang bu tedd bi di ar rasulul mustapha salawaatu rabbi wasalaamuhu alayh mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu ne idmanu lii sittan nga la waaye na ma wattul juróom benni mbir yama leen bëgg a wax ni man min anfusikum na ngeen ma wattul juróom benni mbir ci seen jëmm waaw admanu lakumul janna ma garantil leen arjan képp ku ma garantil juróom benni mbir ya nekk ci jëmmam ma garantil ko arjan sallallahu alayhi wa sallam bu si jiitu mu ne ñu asdaqu ida hadistum bu ngeen di wax na ngeen wax lu dëggu bu ngeen di wax na ngeen wax lu déggu plateforme ya ngay waxtaane nang fa waxtaane lu déggu chaîne bi ngay waxtaane nang fa waxtaane lu déggu yow miy topp kaa na nga bàyyi topp kaa di waxtaane la nga xamante ne mooy li am yow mi nga xamante ne yaay taskatu xibaar na nga joxe information bi nga xamante ne ku ko vérifier gis ne loolu mooy li am comme sama gaañ yi yal leen yàlla fay ñoom daal lépp lu ñu joxe comme information ci kattanu yàlla képp ku ko dem vérifier di nga gis ne loolu mooy li nekk yal leen yàlla fay amin ya rabbal alamin kon yonentu ne idmanu sittan min anfusikum admanu lakumul janna na ngeen ma garantil na ngeen ma wattul juróom benni mbir yu nga xamante ne ñu ngi ci seeni jëmm ma garantil leen arjanna bu ci jiitu yonentu bi ne asdaqu ida hadastum na ngeen di wax dëgg jamono bi ngeen di wax moo xam waxtaan la moo xam information la moo xam lu munti doon bu dee dangeen dem bay wax wax bi na doon la waay di vérifier mu fekk mu doon lu sax na wax bi nekk lu dëggu waaw yonent bi nee na bu ngeen di wax nangeen wax dëgg ñaareel bi mu teg si ne wa awfu ida waattum na ngeen matale dig ba ngeen dëxalantik nit ñi boo ne ko dinaa la jox jox ko boo ko ne dinaa ñëw demal boo ko ne xaar ma nanka xaar boo ko ne dinaa la xaar xaar ko boo ko ne nañu daje béréb sangam fexel loolu mu antu ak linimel ni noo tax mu ne wa awfu na ngeen matale wa awfu na ngeen remplir wa awfu na ngeen respecter ida waattum bu dee déxalante ngeen ak seeni nawle bu dee déxalante ngeen ak kenn ci xarit yi bu dee déxalante nga kenn ci am di jàmm yi képp koo mun a moom waxtu rendez-vous moo xam lépp lu munti doon ndegem dangeen takk bi dëgër ne dinaa ñëw xaar ma dinaa la xaar dinaa la jox wala dinaa la ko wax wala dinaa ko indi fexe loolu mu doon lu ñoŋ mu doon lu nekk moo tax mu ne wa fu ida wa attum na ngeen matale dig ba ngeen dëxalanteeg nit ñi na ngeen ko matale léegi-léegi ñu gis benn slogan ba nit ñi di jëfandikoo ñu ne diw sangam de tubaab la day respecter rendez ba yonent bi doon wax lii fekk tubaab amagut rendez-vous bu muy respect ñu jël waxu yonent bi toxul koy jëmmal koy si yeneen xeet ñi mel ni du yëfu jullit complexe boobu moo fi war a deñ complexe boobu moo war a deñ ci jullit ñi waaw ñun la suñ yonent bi ne nañ leen wax dëgg bu ñuy wax bu ñu demee bay wax nañu wax dëgg bu ñu demee ba dëxalanteeg nit ñi nañ leen respecter rendez-vous walla wala dig boobu ñu dëxalanteeg nit ñi nañ leen ko matale ko dëxalanteeg na nga ko matale ku dëxalanteeg yow na ko matale ñetteel bi yonent bi neena na wa addu ida atmantum na ngeen matale kóllëre biñ leen sas kóllëre bañ la jox ndénkaane moo xam poste moo xam limunti doon ndegem dañ la wóolu bi dénk la ko nanga nga mëtale kolëre boobu bul def dara bul nekkee anam ja nga xamante ne mooy tax kolëre boobu naax saay bu dee béréb la ñu wóolu la dénk la ko ñu ne la yaa fi njiit yaa fi doon kilifa yaa fi wuutu kilifa bi wala kilifa bi yow la toftal ci boppam ci béréb bi kóolute boobu mu am ci yow fexeel nga di ko saytu fexeel nga di ko wottu fexeel nga di ko taxawee anam bi nga xamante ne moo koy ñoŋal waaye bul nekk anam bu nga xamante ne day tax kóolute boobu tàbbi géej mel ni matewoo ko déedéet yonent bi nee na bu leen def noonu wa addu na ngeen joxe ida atmantum bu dee dañ leen dénk lañ leen dénk nag nangeen matale kóllëre boobu waaw ndénkaane bi bu fekkente ne dañ la kaa dénk li munti doon na matale kóllëre boobu ba mat sëkk bu ci def dara luy sikkal kóllëre boobu ndax bañ la doon dénk poste bi bu dee postu la bu dee bërëb la bu dee lu muntu doon buñ la ko doon dénk dañoo gis ne wala dañoo rafet njort ne mate nga ko man nga ko ba tax ñu teg ko sa loxo kon loolu ñu teg sa loxo kóllëre boobu ñu la gàll fexeel lu koy ñoŋal nga nekk ci lu koy xajamal nga sore ko boo ko seenee muy ñëw sax nga teel jóg gatanu ko ngir mu bañ a yegsi ndax kóllëre daf di loo xamante ne képp ku koy matal <clears throat> dadi jëmm juy fésal ne moom ku gëm yàlla nga ku wóolu yàlla nga moo ne juróomeel bi yonent bi ne ñu wax fadu furujakum sallallahu alayhi wa sallam ne ma wottul seeni ñooru tubéy na ngeen ma wottul seeni lafu sër bu dee góoru yàlla nga yonent bi nanga garde sa ñooru tubéy bul ne fu nekk nga waa nga meloo melokaanu ku sàggane bu dee jigéen la yonent bi nee na nga garde sa bopp bul mel melokaanu ku sàggane fu ne nga meloo melokaanu ku sàggane déedéet wax yonent bi nee na na ngeen ma wottul na ngeen ma sàmmal furujakum bu dee góor la yonent bi nee na nang ma sàmmal sa ñooru tubéy bu ko di tekki fu ne na ko takk bi mu dëgër këj nga sàmmal ma la nga denc bu dee xëytu jigéen la tamit yonent bi noonu la la ko joxe comme message comme num ko joxe góor gi lam ne ku góor ki nanga takk sa ñooru tubéy loolu lañ ne bu dee jigéen la na takk lafu séram bi mu dëgër këj mu bañ a doon ku sàggane kañ leneen li ci des yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam wa gaddu absaarakum na ngeen damm seeni gis na ngeen damm seeni xef na ngeen bañ di xool lu ne na ngeen sàmm seeni xoolin du lépp lañuy xool boo demee bay xool na xool lañ la xoolloo bu dee sa bot si tege faj atan ci lu bette bu fi nekk di ràññee na loolu mel couleur beeg guddaay beeg réyaay beeg comme nuñ koy gisee ci lenn ci internet ñi lañuy wone kenn mënu koo tudd waaye noonu lañ koy bañ a xoolee tamit ci terrain bi la doon lañuy seen séen te gisuñu ko ci image waaw sa but bu ciy tege rekk na nga tudd cellaange yàlla ne subhaanallah nga daal di sa bët jëlee ko foofu jëmale ko feneen te nga doon ko conscience koo xamante ne képp koo xamante ne boo ko séenee xam ne kii de bu ma waajalul sama bët jëlee ko ci jëmmam dina ma won loo xamante ne waruma kaa gis te waruma kaa xool conscient boobu noonu ngay conscient amaano yàlla mën naa aar sa bët muy tege ci li nga xamante ne islaam dala kaa tere ngir nga xool ko moo tax sallallahu ne ñoo wa gaddu na ngeen sàmm absaarakum seen bët yi ngeen baña xool lu ne ngeen bañ a xool lu ne ba di gis lu ne waaw dajeeg nga kenn koo xamante ne ku sàggane la waaw waaye nag yow fexeel daal bu fi nekk di ko xool xoolin bi nga xamante ne sa bët bu gisee fenn ci jëmmam amaana nga faggul sa bopp bàkkaar kon da moytu lu jiitu mu di la ko won walla nga di ko gisal sa bopp gis nga réflexion ba ngay am ci waruwaay bu la nar fil gis nga noo koy moytoo bu dee noonu ngay muytoo di xool lu ñaaw lu xaraam loo xamante ne sa bët islaam nee na la bu ko xool comme na yonent bi ne na ngeen sàmm seeni bët bañ a xool lu ne bu dee da ngay moytu xool lu bon comme na ngay moytoo waruwaay bay ñëw di la fel gis nga loolu noo koy bàyyee xel bi di ko moytu pour mu bañ laa fel bu dee noonu ngay bàyyi xel xool lépp lu la yonent bi ne bu ko xool na yàlla mun naa sàmm sa bët mu bañ a tege ci lépp lu ñaaw te ñu ne ñàkk xool lu xaraam ñàkk xool lu ñu sib ñàkk xool la islaam ne góor waru ko xool wala jigéen waru koo xool ñu ne boo ci tënkee sa bopp quarante jours yàlla dalay may basira basira mooy leeraayu xol waaw sa xol day niit day naat day gis waaw sa xol léegi-léegi mun ngaa xibaare nit ñi sax lu ñëwagul te buy ñëw day fekk mu tombe comme ni nga ko waxee buru yàlla muy anticiper lenn ci say kàddu ndax danga bañ di xool li nga xamante ne day fay leeru xol képp ku xool la bon la nara fay leeru xol sa xol day jebbi say xol day naat day leer man ngaa wax lu ñëwagul te bu ñëwee day nekk comme nanga ko waxee parce que sa xol la yàlla leeral léegi-léegi ngay rëccale di wax ay kàddu yoo xamante ne nit ñi bu ñu dundee ba gis la nga doon wax dañ la naan diw sàngam di nitu yàlla la waaye dafa fekk ne rek nga bañ nga sàmm sa bët sàmm sa xool bi du xool lépp lu yàlla araamal du xool lépp lu yonentu bi xaraamal waaye doo xool lépp lu diini islaam xaraamal képp ku yar sa bët yarin bi ni mel yàlla dina leeral sa xol leeral sa xel su ko defee nga doon nit kuy làmbook leeru yàlla ci kaw suuf si ci biir nit ñi ba tax na léegi-léegi boo rëccalee kàddu sax loolu nga rëccale buy am day mel ni day am comme ni ko waxee su ko defee nit ñi ñu di la jiiñ ne diw sàngam de la diw sàngam de nitu yàlla la li mu wax mooy am orko du luwulu dafa am fi nga tënk sa bopp dafa am fi nga nangoo yar sa bopp dafa am fi nga nangoo nekk di yar sa jëmm ji comme ki bind sa jëmm ji ak kim ne message ba ma la jox nang ko jox sama jaami ñu meloo nii ki la jàngal catalogue boobu num la ko jàngalee noonu nga opté di ko def su ko defee sa borom mi bind sa appareil yooyu ngay xoole fekk yaa ngi bañ di xool lu ñaaw la koy merlo day dottil dalay dottil leer ci sa xol ngay gis di xàmmee di xam moo tax yonentu bi ne waxaddu na ngeen ma sàmmal absaarakum seen bët yi ngeen baña xool lu ne waaw ngelaw bi am na la mu dind ci melokaanu yére kenn ci nit ñi bu fa nekk di xool loolu lu mu doon waaw bu fa nekk di xool lu mu doon nit ki romb na la jox na la ginnaaw bu fi nekk di xool béréb boobu nu mu mel islaam dalakaa tere képp ku yar boppam anam bi ni mel yàlla mooy leeral sa xol mooy leeral sa xel ba tax na leeru yàlla nga nekk di doxaaleek moom ci kaw suuf si ba tax na yonent bi ne wa gaddu na ngeen ma sàmmal absaarakum seen bët yi la jeexal xadis bi nag mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu wakkufu na ngeen téye ay diikum seeni loxo yi waaw seeni loxo yi na leen ko téye jëmale ko ci loraange bay ngeen di lor nit ñi na ngeen bañ na jël seeni loxo di ko loree nit ñi waaw ndegem ren tem ba kilifa yi waxtaane ci béréb yañ doon waxtaane ñu ne nañu jël temm makaarimal axlaaq mooy jikko bu tedd ba yonentu bi làmboo sallallahu alayhi wa ñu nit jikko yooyu ñu jukkil leen ci ndénkaane ba mu dénk xeet wi ne na ngeen ma sàmmal juróom mbir yi nga xamante ne képp ku ma ko sàmmal ma garanti la àjjana mu ne ñu na ma sàmmal juróom benn mbir ya nekk ci seen jëmm yi man it ma garanti leen aljanna admanu lii sittan min anfusikum admanu lakumul janna na ngeen ma wottul na ma garantil juróom benn mbir ya nekk seen jëmm yi ma garantil leen janna bu ci jiitu mu ne asduqu ida hadastum na ngeen di wax dëgg jamono bi ngeen di wax moo xam waxtaan la moo xam information la moo xam xibaar la moo xam lu munti doon boo dee làmmiñ moo koy tudd na doon lu dëggu ñaareel bi mu ne ñëw wa awfu ida waattum na ngeen matale kóllëre ba ngeen sëq nit ñi bu ngeen diggee nit na ngeen matale digg ba ñetteel bi mu ne ñëw wa addu isa utmintum na ngeen joxe kóolute bi nga xamante ni wóoru nañ leen ko bañ leen dënk loolu ñu am ci yéen kóolute bañ leen ko dënk na ngeen joxe lañ leen dënk ci kóolute bañ leen dënk na ngeen joxe anam ba ngeen war a joxe ci kóolute boobu ba mu mat ñeenteel bi yonentu bi ne wax fadu na ma watul furujakum bu dee góor la na wattu tubéyam na sàmm ñooru tubéyam bu dee jigéen la na takkal la fu séram mu bañ koo firi fu ne juróomeel bi yenentu bi nañu wa gaddu absaarakum na ngeen ma watul seeni gis na ngeen ma sàmmal seen bët ngeen bañ a xool lu ne waaye juróom-benneel bi mu ne ñu wa kafu ay diyakum na ngeen téye seeni loxo ngeen bañ a doon ñuy lor nit ñi ci seeni xalima ba ngeen di bindee waaye na ngeen téye seeni loxo ngeen bañ a lor nit ñi ci li ngeen leen di dóore waaye na ngeen téye seeni loxo bañ a lor nit ñi ci tampon ba ngeen di tamponné cachet yeeg signature yeeg ñoom seen na ngeen téye seeni loxo bañ a lor nit ñi seeni loxo ci xeetu format bi nga xamante ne bu loxo yëkkati rekk nit ki dina ci loru na ngeen téye seen loxo ci loole na ngeen téye seeni loxo bañ a siñi lay lor nit ki waaye na ngeen téye loxo di jëflanteeg nit ki ci baatin la koy taqale ko sagoom bem ci loru waaye na ngeen téye seeni loxo ci xeetu cachet bi nga xamante ne bu ngeen ko tamponné nit ki dina fa jaaree alku walla mu yàqule waaye xeetu loraange boo xamante ne loxo mooy la koy sooke na ngeen ko moytu sallallahu alayhi wa nañu na ngeen moytandiku seen loxo muy lor nit ki ci format bi nga xamante ne noonu la koy lore moo ne lii képp ku ko dégg nga di ko dund yow ci sa bopp dinga xam ne sa yaram sa jëmm mucc na waaye la yonent bi ne képp ku ma ko garantil ma garantil la aljanna la mu saf nag ki ko mëcca ko xam ba tax na ñu nit Rewmi FM 97.5 ñu andil leen thème ba ñu yonent bi dénkaane nee na képp ku ma wottul juróom benn mbir ma garanti la aljanna ñoo ngi ñaan yàlla suñu boroom la yonent bi digle ci xadis bi yan ñu ko yàlla yombalal yan ñu ko yàlla jàppandalal ñu di ko dund waxtaan bi jeexul dañoo yëg ci fu ñu war a yëkkatee jotaay bi fas yéene jébbal béréb bi ñuy joxe xibaar ci nasaraan nasalullaha jalla wa ala an yajcalana min alladina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna axsana allahuma ya rabbi aati nufuusana taqwaha wa zakkiha wa anta xayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha fa nicma almawla wa nicma annasir allahuma ya rabbi aminna fi awtaanina waslih allahuma aimmatana wa wulaata umurina allahuma ya rabbi ihfad bilaadana min alfitan maa dahara minha wa ma batan amin ya rabbal alamin baraka allahu lii wa lakum fi alqur'ani aladim wa nafaani llahu wa iyaakum bima fihi min alayati wa dikri alhakim aqulu ma tasmaun assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu